loolu waxon na la ko. waaw tay seigne As wane nga ni eh, allo Sénégal sa site la ndax namoon nañ la motax tay li nga maye dafa beuri dan nga def chaque fin émission nga wax nga def ay prédiction nga prédire ay affaire yo xam dina ñëw tay lan ngay maye ci ay révélation alhamdullilah ma ngi sante yalla bu baax di wax ne Sénégal yalla yalla def fiñ jamm yalla yalla def fiñ ndam. euh d'ailleurs di lancer un message très fort. waaw ci ñi déglu Lamine rénovation yi may def. prévenir la té tubaab mu naan prévenir mais veut que guérir uh-huh. man domou sénégalais là li ma am bu ko américains yi amoon jël waaw di wax information bo xam dara dana xew pourtant damay joxe ay solution pour il faut yéen journaliste ñen koy léral muy leer waaw te damay wax lu baax damay wax lu bon média bi rek bari na ñi wax lu bon nak la wax mariage yu Adja bi. waaw sëy yi sëy yi sëy yi yaa ko yaa ko annoncé coupe du coupe d'Afrique bi yaa ko annoncé woon. nañu bàyyi di jël di focaliser ci benn affaire naan li rek. jaari sow bi ñu ko doon seet yaa ni mi ngi fee. man lu xew ci xaal bi pays yàlla bi yëpp dama koy wax yàlla loolu la ma may moom laay wax mais nit ñi bu ñu ko jël di ko natt feneen lii may wax nag pour précaution moo tax ma koy wax ñu gaaw faggu bu ma ne diw wala fenn ñooy niñ jóg def ay ñaan def ay sarax sarax day fànq li ma gis daal ci réew mi war a ñëwaat waaw lenn la lo xamne ne daal Lamine fu mu toll nii moom ah. dana tambale ci affaire mbeur yi lay dugg. gis naa gox. gox waaw bo xamne ñaari leader ba ñet ay leader yu bari amon nañ fa. jafe-jafe dina am ci ay mbeur ñaari mbeur sen kaa te buñ moytuwul. waaw dana laal ñaari mbeur yi te lu koy waral ben combat combat buy am jaxasoo jaxasoo am. ci leader yi ak nit ñoo xam ne wax yi dina bëri ba laal ñaari mbër yi ba ñaari mbër yi di am tuuti jafe-jafe yu ñuy am. maar il faut du jafe-jafe nag rayante wala dara mais euh, maanaam jafe-jafe ci wàllu rek ànd boo xam ne amoon na ñu leen laan gis ñuy gis ñenn ñi te doon suy gisati kenn ki waxati naa nag uh-huh. bëri boo xam ne dañ gis mbër moo xam ne chaque jour dañu laan gis muy ànd ak nit bëre am dootun ko gis camp camp benen camp bi ak benn camp nekk ci benn gox gox bi dem ba ci biir mbir am fa ba mbir amé moy mbeur bi mujjul bërëg benn mbeur bi benen camp benen mbeur bi di wax wax ci xawa am tuti lënt lent ba ay mbir di ci feñ ba ñaari mbër yi di féewloo tuti mak mo len di jubale hmm. magu mbeur mo len di jubale waye nañ ci teey ñu def ci ndank parce que lolu da nga am te lolu japp len bind len lolu dinañ ko bind. bind la loolu bind leen lii. bind na fan yi lamin waaw di nga gisaat mbir mu feeñ bu doy waar bu gaaw boo xam ne ku siiw la mais bi yoon du doon kilifa diine. Ah. ku siiw dana gaañuwaat mais nitu àddina loolu bu dul politicien doon musicien doonu maanaam artiste comédien doonu ab maanaam koo xam ne da doon jouer ay affaire ay sport yooyu noonu. waaw dana am ku siiw ku ci gaañu bu mujj tey sportif bi gaañu nii yàggul te dëkk Géejawaay maa ko wax. bii beneen la koo kii mooy gën a siiw kii. loolu yàlla wan na ma ko. Uh-huh. te bii bu génnee dégg nga beneen bi amaat mooy ci Afrique. waaw. am na jéeg bu mag bi am tremblement de yi maa fan yee passé. waaw ci ci ci Feeling Dakar. jàppal leen beneen tremblement de terre mooy amaat bi mu ngi jëm côté nii nii mooy Amérique bi kanadaa bi. Mm-hmm. tremblement de terre mu ngi amaat. feeñ na Turquie feeñ na fii mais am na beneen côté bi am nii parce yàlla. mooy wane boppam il faut nit ñi xam loolu bon bon we njaalo ge caaxaan dafa bëri ci dëkk bi yàlla di wane boppam traitement de te gis naa ngelaw li waxoon naa ko waaw mais danga nga ne woon ngelaw li day jàll am na feneen fu jëm dana am fu jëm waaye ngelaw li nañ gaaw ut sarax ci réew mi sarax bi xam na la ku ci ne na jël limon juróom-ñaar mu njëkk naa yow tagg benn bi teg ci bopp bi tëdd ak moom chef de famille bu ne bu xëyee sooteel jël yeneen limon yëpp ngelaw lay day yàlla la jot. fa yóbbu dara. maye naa ko gratuitement jëlal ko nañ <laughs> ko ci réseau yi juróom-ñaari limon. Mhm. da nga koy jël ko ci ndox. dag jël benn bi dag ko ci nii ma daggee bii. waaw benn bi nga jël ko def ko sa loxo nii ñaan soxla yëpp sa njaboot nga raay ko ba bi nga ñagaayanoo benn ñaan yàlla sa njaboot ak sa famille. parce ngelaw lii jée bu rëy la noo am yàlla dafa am ñu mu rus ci réew mi. allahu akbar jée musiba bu doy waar moo am. yàlla moo ko faxas day dem day yàlla. jàll na. Oh. te waxoon naa ko relève allo Sénégal. ndeysaan beneen mooy. waaw di nga gis kilifa goo xam ne. feebaroon na. Uh-huh. dana tane fan dee nga ko gis mu dëkkaat ci réew mi. feebaroon na. Uh-huh. ak promoteur làmb la woon. bi décédé fan yi maa ko ah bii moom dana am tuuti tan mais gis naa ne mbiram yi moom promoteur boobu ci ab doomam lay mujj waxoon naa ko. waaw doom mooy mujj mooy mujjee mbir yi. waaye moom dana ñibbisiwaat nekkaat ci activité am alhamdulilah beneen mooy di ngeen gis fan yi mbir muy feeñ ci benn célébrité bu ñuy takkaat. Hmm? waaw dana am loolu nouvelle bu neex lañ. <laughs> yoon nag kii nag moom dafa sëyoon tasaat ak keneen koo xam ne kun jànq la ñaar lañ kenn ki dafa sëyoon tas kii jànq la bu ci réseaux sociaux yi. Hmm? Ah yoon nag dina dina am am solo tas yi dana am na beneen nit koo xam ne góor la woon dafa tasoon. Hmm. di liggéey ci animation. waaw dina jabar loolu yéeg feet leen ko ci weer yi di ñëw. ku siiw la animateur bu siiw la. waaw tasoon na. waa tasaat. waaw dina amaat. xam naa kan la. kooku gis la mu dana am <laughs> beneen mooy may waat mooy waxoon naa ren sëy waa at nit ñi siiw ñi ki gaañu ci sous région bi waxoon naa ko mooy nit ñi nga xam ne ñoo ne ci safaan nañ moytu bi yoon nag am na loo xam ne na xew ci benn agression bi am ñoom ñëpp nañ leen jàpp agression bi mhm. bu doy waar

Mhm. di ko gis léegi dana génn mhm. leneen lu may teg rek mooy eh. wax dëgg yàlla euh, li ca des mooy lu nouvelle bu neex nag moo a laay may comme nee nañ lu lu safar rek laa waaw lu neex li mooy Sénégal di ngeen fi gis jàmm ju neex mhm. yoo xam ne fan yi di ngeen gis benn déclaration maanaam homme religieux bu neex boo xam ne bu ko waxee révélation bu ko waxee dana neex waa réew mi yëpp bu ñëpp seen xol yi di kontaan dañ mhm. gis ñaari homme politique yoo xam ne sax dañ fa jaaree juboo dañ mhm. gis ku jógee koo ci camp politique bee mhm. benn politique camp bee dem ci beneen camp politique bi surtout loolu wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu mi ngi noonu moo ngi internet Allô Sénégal ñi leen di jaajëfal di leen jox dig daje seen beneen émission jërë ngeen jëf